yitte rek la. wajalilaayi maskani tuuba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat Touba ca kanam di kuréel goo xam ne bi mu juddoo ak léegi yàggul waaye liggéey na fi ci Touba Mbacké liggéey bu rëy te sell bu ñëpp teg seeni bët ci fànn yu bëri nag te wuute wàllum wér yaram lu toll ci ñeenti poste de santé yoo xam ne Touba ca kanam liggéey na ko def ci milliard bu teg lu takku ci sunuy koppar ak lépp loo xam ne jëm na ci jumtukaay yi a dem wàllum éducation di njàng meek njàngale mi li ci Touba ca kanam def ci dëkk bii di Touba mënee su koo lim ci tabax ay daara jàppale ay jàngalekat ci ay formation ay tàggatu xam moom la fa yéene liggéey fii ci Touba yoral ko boppam ak lépp lu ci aajow wàllum social muy dimbali askan wi li ci Touba ca kanam def ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba rawatina événement yu mag yi néew na mu am ñeneen ñu koy def bëri na bëriwaay goo xam ne tey bu ñu ko doon xayma ci ay koppar millions yi ci ay téeméeri téeméer la ñuy wax te loole ci askan wi la dellu mu nekk loo xam ne ay firnde yu leer moom moo ci am wàllum environnement it Touba ca kanam li mu ci liggéey xoolal ma diggante bi nga xam ne moom bàyyeekoo Mbàkke ñëw Touba li ñu fi def ci ay garab ba ci biir dëkk bi ak garab yi nga xam ne moom lañ fi jot a jëmbat wàllum éclairage public di leeral dëkk bi moom it mënee su koo lim li ci mujj rek moom mooy corniche bi nga xam ne moo nekk ci Touba di ñaari voies yi nga xam ne sëriñ bi moo leen sant ginnaaw bu ko nguur gi liggéeyee ñoom Touba ca kanam ñu defar lamp yi leeral ko ba mu leer naññ ba ci wàllum assainissement assainissement boobu sax moo jare indi ay leeral ndax bu ay nit jógee di dut baaraam wala ñu tuumaal Touba ca kanam ci loo xam ne dara tax koo jóg lu dul yàq ak tuutal liggéeyub Touba ca kanam waaye nag tuuti nañu ci xajamal liggéey bi Touba ca kanam liggéey assainissement bu dëkk bii di Touba ak liggéey yoon wi Touba ca kanam li ñu ci def ci koppar tollul na ci milliard ak genn wàll te amu ci benn liggéey boo xam ne Touba ca kanam demee na ci ak tañax tañaxi ndax Touba ca kanam mooy kuréel goo xamante nii mbooleem compétence yi dañu ko dajale mu am ci biir ci domaine boo jël nag Touba ca kanam am na ci ñoo xamante ni xarañ nañ ci lool moo tax liggéeyu assainissement bi bañ ko dooree dañ koo teg ci lu leer naññ ci ay boroomi xam ci ay gëstukat yoo xam ne seeni xam-xam ñëpp ko ràññee ci biir réew mi ak ca bitim réew bu weesoo loolu sax liggéey bi Touba ca kanam da ko ànd ak mboolem service yi nga xam ne ñoo nekk ci état bu Sénégal muy ONAS AGEROUTE ba ci commune bu Touba nga xam ne kenn ku ci nekk liggéey bi dara ump la ci kon bépp branchement boo xam ne Touba ca kanam def na ko ci réseau yi lu mu am ndigal la ci kilifa yi nga xam ne ñoo yor wàllu woowu ndax Touba ca kanam liggéeyam lépp da ko teg ci yoon te xam bu baax a baax fi mu teg tànkam ak ñi nga xam ne ñoom la koy seqal ay jafe-jafe ci mbënn mi ba ku ne jóg di wax di tuumaal Touba ca kanam moom moo di bassin bi nga xam ne moo nekk ci Kër Ñang te ñu jàpp ne am na liggéey boo xamante ni nguur gi waroon nañ ko def wala waa ONAS laataay nawet bi muy kuure ko dindi suuf sa ca nekk ci diirub noor bi ngir mu mën a jël ndox mu bari loolee lañ defut moom moo tax bassin bi la mën a jël ci ndox néew lool moo tax mbooleem quartier yi nga xam ne ñoo war Kër ñan am jafe-jafe ci wàllu ndox mbënn mi sonal leen Touba ca kanam xamul li muy def nag képp sa tànk ak ni bëri na xam ne tey boo demee ci seen i nga waxal leen lu ni mel soo moytuwul danañ jóg dal sa kaw ndax liggéey yi nga xam ne Touba kanam liggéey na ko fa jëlal ma fi nga xam ne moo di ci tóokóor ba ci Daarul Xuddoos ni nga xam ne noonu la daan mel bu njëkk ak jamono bi ni nga xam ne noonu lañ ko liggéeyee ba dem béeg dikk bi yombaat fa benn oto du fa xuus demal quartier si ga ak déeg bi nga xam ne moo fa nekkoon ci jamono ak ni nga xam ne noonu la ko Touba kanam liggéeyee ak yoonu daaru arrondissement bu ndaam bi nga xam yombaat te amul benn oto bu fay jaar di xuus noonu lañ ko defee ci mbaar ya ak quartier yu bëri ci Touba ba ci Touba Njaareem muy quartier yu bëri yoo xam ne mëneesu la leen lim dëkk bi nag moo naqaree defar lool ndax soo jugee di jëf am ñu nekk ci sa ginnaaw di xëpp suuf ak a xajamal ndax ay intérêt personnel rek ak bëgg laa yàqal liggéey bi nag kenn mënu ko yàq wala nga koy gàllankoor ndax day dem Touba ca kanam la jëm te Touba ca kanam moo ko fa yóbbu li war nag ab taalibe bu ne moom mooy ñëw jàpp ci liggéey bi ngir mu jëm ca kanam ndax gàllankoor ko mooy gàllankoor liggéeyub Serigne encore liggéeyub Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké bii ndax Touba ca kanam lépp lum liggéey rek ci dëkk bi ci ndigalul Serigne Mountakha Mbacké la ko liggéeyee boo jëlee it ci wàllum yoreen gu sell Touba ca kanam dara gënu koo leer wala sell ndax moom rek lañ fi gis kuréel goo xam ne weeru jot daañu def seen rapport def ko ci internet bi mu nekk vidéo ñu leeral ci koppar yi nga xam ne moo ci jot dugg ci weer wi ak lañ ci jote dépensé ak li des ci seeni kees loolee yaakaar naa mbir gënee su ko leer liggéey bi nag du laa suuf benn yoon ni nga xam ne noonu la ko Serigne Mountakha Mbacké Bachir waxee waaye képp koo laalal suuf yow yaay féete suuf te kenn dootu la mën a yëkkateeti. bon lu ma séntu woon ci yéen gis naa lu ko ci kaw sama njort kon kon noonu rek la. leen sëmb bii ngeen sëmb li mu rëy rëy rëy yitte ji attan ko wanajini waxilmu aw saara wa kullu man abani aw yitte rek la waaw waaw yitte nag moom dara dara dara mën sotti ci wul yitte kon kon mel na ne kon li sëmb bii ngeen sëmb li muy rëy rëy rëy yitte ji at فلتكفني عسى جميع العالمين ولتقضي مسايا رب العالمين